waaw mais suñu rajo ngeen jëf en fait tout est lié li ma wax léegi euh, su enseignants yi manqué ce sont les mêmes enseignants qui se démultiplient suñu manqué itam nombre bachelier lu augmenté infrastructure doyul mais da ngay gis enseignants yu enseignants yu xëccoo ay salle jàngale donc loolu bokk na ci li nga xam ne day joué ci qualité bi manque d' enseignants yi manque d' infrastructure c'est c'est c'est c'est sa ça impacte ci durée année bi beneen poñ bi mooy c'est d'ailleurs mooy laal euh, situation fermeture bi parce que bu leen fàttali itam euh, université ñoom tëj nañ ko au mois de euh, mars 2020 covid bi 16 mars 2020 bu leen ko fàtte loolu tëjoon nañ ko ah, mars 2020 la covid laay njëkk wax balaa may ñëw là on comprend la situation sanitaire ñu delluwaat tëjaat ko juillet euh, juin euh, de 2022 avec les législatives ça bu leen ko fàtte parce que on était déjà en train de finaliser pour def examen yi ñu tëjoon ko ndax politique au mois de juillet 2022 ñu delluwaat tëj ko au mois de juin pays yi nga xam ne sax ñoo ngi guerre mel ni Ukraine mais tëj ñu seen tëjuñu ko ñoo ngi jàngale mais mënuñu te li graaw ba graaw li nga wax ni je suis d'accord avec vous parce que man j'ai des étudiants aujourd'hui soo xoolee euh, soo seetee ñun on a fait un seul semestre sur année deux mille vingt deux vingt trois un semestre c'est même pas fini xaaju at mi la ñuy def xam nga école ubbiwaat na pour gone yu ndaw yi ñoo ngi jàng xaaj bi defuñu ko xaaj bi defuñu ko te suñu moytuwul loolu mooy moom la ñu bëgg alerter nit ñi suñu moytuwul lañ ko nar a ñàkk parce que soo xoolee. Euh, man ma ñëw ci mooy fermeture je bascule sur la fermeture parce que xoolee kan moo tëjoon université yi gouvernement moo ko tëjoon on connaît les raisons mais il y a trois positions trois situations actuellement soo jëlee Ziguinchor. Mhm. donc actuellement il y a Saint-Louis mooy def cours université Gaston Berger de Saint-Louis bi ma jógee moom rek moo fiy def cours UGB. Mhm. Mhm. Sénégal yëpp pratiquement jànguñu ma sérieux kaay Ziguinchor foofu euh, ubbi nañu maa étudiants yi jànguñu nee nañ dañuy grève parce que chantier yi parewul te y a un soo demee euh, soo jëlee Saint-Louis ñoom ñoo ngi jàng euh, soo jëlee Bambey Thiès Kaolack euh, ñoom ñëpp jànguñu parce le problème bu ñuy wax mooy social mooy repreneur fay ñu leen mais xanaa mois de juin ak juillet bu ñuy tëj xanaa xamuñu woon dañu waroon fay restaurateurs yi ministre lu mu doon def juin juillet août septembre octobre on en novembre ils avaient largement le temps de payer le repreneur kan moo war a fay repreneur yi restaurant yi social bi kan moo koy gérer ce sont pas les le gouvernement de régler ses dettes repreneur tey jànguñu on a perdu un mois encore octobre jànguñu ko donc le gap donc c'est pas les enseignants ñoom ñooy fay restaurateurs yi donc ñoom suñ ko defoon bokkul a kaw ikat bi soo xoolee yi ma lim nii le seul problème le ministre l'a avoué hier il parle problème de budget mais kan mooy rek le problème budget bi c'est pas les enseignants donc su fa suñu fayoon suñu préparoon ouverture bi on aurait payé ces repreneurs là pour que ñu mën reprendre au mois d'octobre année académique on est conscient des décalages mais lii mooy non seulement il y a un décalage et le gouvernement accentue le décalage en ne euh, réglant pas la dette aux repreneurs ñoo koy accentuer beneen bi soo jëlee kaw kat bi les raisons évoquées mooy la euh, ministre wax na ko démb il l'a avoué à demi-mot mais c'est une question politique parce que ñun ñun on est sur l'académie la pédagogie moom moo ñu intéressé ñun on est pédagogue c'est la pédagogie politicien nañu bàyyi les politiciens de tout bord nag laay wax nañu bàyyi ñu jàngale parce que tey xoolal situation bi. mënuñu leen bàyyi jusque yéen aussi nañ ci politique bi. non je dis ay sénégalais ñu comme ñëpp. c'est-à-dire que non non quand quand quand quand je bàyyi mooy nañ ñu bàyyi ñu jàngale. c'est-à-dire que ñun on est la le SAES est un syndicat autonome apolitique man je parle au nom du SAES au nom des enseignants c'est des principes que l'on mooy que euh, les politiciens nañ ñu bàyyi c'est soo xoolee y en a qui s'identifient aujourd'hui le ministre dit que euh, ñenn ñi politique moo tax ñu bëgg uppi mais ñi tëj itam ñaar y a des gens politique moo tax ñu bañ a tijji de tout bord mais quand même mënuñu mënuñu continuer comme ça di dire parce que il a nañ ko jox garantie sécurité pour ubbi mais kan moo mën a garantir sécurité sénégalais du dul état bi est que ñun mën nañu garantir que y aura pas de de de de de conflit mais c'est comme si nga tey borom oto yi. bu kenn dawal parce que nañ ko nañuy jox nag gar borom oto yi joxe garantie ne suñu génn am accident kan moo ko mën a joxe ci ñuy dawal mënul am mais gouvernement bi soo xoolee suñu communication ñun lépp lu ñuy wax mooy que on garantit d'abord la sécurité et on ouvre parce qu'on est conscient des risques sécuritaires mais il faut pas que à ce rythme-là on risque d'ouvrir après les élections et l'année sera irrécupérable parce que lu ñu ko bëgg a euh, remplacer qui vraiment un problème mooy l'histoire de l'enseignement à distance mais quand nit ñi nañu dellu seen xel c'est que ça ne marche pas ça n'a jamais marché lu ñu koy waxee nii ça ne s'improvise pas pour autant d'étudiants mënuñu ko improviser UVS mu ngi nii ñun suñu collègue yi ñoo ngi def lu ñuy mën ci UVS avec beaucoup de difficulté mais nañ xalaat doomu jàmbur yi enseignement à distance c'est des slogans distanciel hybride euh, bimodal tout ça c'est des slogans creux pour dire au président qu'on gère les choses gérer wuñu dara la réalité c'est les gens ne gèrent absolument rien du tout dans ce pays-là en ce qui concerne l'enseignement à distance et donc mënul nekk solution miracle immédiatement pour autant d'étudiants donc na ñu sécuriser ñoom ñu ñëw ubbi jàngale euh, pour étudiants yi bañu per année bi loolu la mën a wax vraiment tey dañuy def marche pour protester parce que dañu bëgg jàngale dañu jaaxle dañu bëgg a jàngale mais xanaa ku la wax dafa bëgg a jàng dem bay marche dem bay grève ndax jàngale xam ni kooku. d'accord.